bokki jullit yi fi daje asalaamualeykum bokki taalibe yi sëriñ Abdul Fattah moom Cheikh Mahamadul Fadal moo ma jox ndigal ma jot li kàddu yi mu jëme ko ci jullit yépp jëmale ko ci taalibe yépp ak képp ku mu agsi ci yow te nga soxla koo jël sëriñ bi mi ngi nuy nuyu ñun ñëpp nu ndokkeel ci bis bi nga xam ne moo nu fi dajale muy bisub jaamu yàlla di bésub jëfandikoo ndigalul sunu boroom lu ñu ca def yàlla na ko yàlla nangu sëriñ baa ngi ñuy ndokkeel bu baax a baax di ñu ñaanal nii ñu ko fekkee ren ñu fekkee wat ko déwén gannaaw bu ñu santee sunu borom ci ñaan gi ñu ko ñaanoon daaw fekkee ko ren mu may na ko di <clears throat> ñaanal ñi nga xam ne ñëpp ñoo fi nekkoon ak ñun daaw te fekke ko ren yal na leen yàlla yërëm ñi wéree it yal na leen yàlla yónnee ak wér di ñu dénk nag la sëñ bu mag bi daan dénkaane te xaaj Mouhamadul Fadal daa ko jottali ci bis yu ni deme mu ngi nuy dénk nu sax ci ak jub sëñ bu mag bi laaj na ñaar ñoo xam ne kenn ka ab sëtam a ngi fii toog ci jataay bi ne leen ci lu ngeen nekk kenn ca ñoom ne ko la nga ma digaloon ca laa nekk kenn ne ko ne ko maa ngi déglu ndigal rek mu ne leen man de foofu fépp nekkuma fa man dafa ma nekk mooy xëy ci farata gontu ci sunna dallu ci mandub ak mustahab yéen ñaar ñii de bu ngeen demee fu ngeen dem na leen jot na leen gannaaw bu ngeen ca jaaree jëfandikoo ko la ma leen dénk mooy yéen ñi sax leen ci ak jub ndax ku jub kenn du ko yàpp daan ne ndax mas ngeen a dégg gone yi wàcc leen ron gi ñu ne déedéet mu ne garab gone da ngeen dégg gone yi wàcc leen garab gi ba mu des wàcc leen ron gi daan ne ron moom la ko may gone yëbu ko sax sakkantu mag sax yëbu ko sakkantuma mag dana coow ak fu mën a nekk rek ron lay doon yàlla nañu ko yàlla déggloo daan na su ngeen demee na jëfandikoo dëgg-dëgg imaan dëgg-dëgg lislaam dëgg-dëgg lixsaan dëgg-dëgg lislaam dëgg-dëgg imaan mooy sa pas-pas digganteek sa boroom dëgër ba buñ na la woon kaay ji ñu rey la ngir yàlla nga nangu na ko doomi Seydina Ibrahima ci nangu woon bàyyam ba nangu ko Seydina Ibrahima alayhim assalaam nee na na ngeen fexe ba nekk ci lislaam lislaam nag mooy bul bàyyi dara lu santaane ci ak jaamu yàlla moo xam muy waajib walla manduub farata la wala sunna la na ngeen saxit ci lixsaan su ngeen demee lixsaan nag moo looy def rek yàlla tax di ko seereel yàlla daan ne ku sax ci imaan dana dana dox si digganteem ak ku kéefër ca la musal sax ci lislaam dana dox ba doo mën a def lu dul jaamu yàlla dong ngay man te yoon woowu mooy yoon wala yóbbu àjjana yàlla nañu ci yàlla boole na ngeen sax ci lixsaan it lixsaan nag mooy dox sa digganteeg bokkaale gu feeñ walla gu nëbbu wala sax ak naafiq yooyu yëpp yàlla nañu ci yàlla musal bokkaale nag ba ci gën a tuuti te gën a fës nit ñi gën koo fonk ci jamono ji ñu toll fonk ko lool mooy njistal lu waay di def jëre ko ba ñëpp dégg ko ñëpp seen ko su ko ñëpp jëree soo ko jëree ba ñëpp dégg ko seen ko nag su boobaa bu fay jotee na seete ñam ko doon wan waaye bu mu ko wan suñu borom ndax soxlawu ca dara lexsaan nekku ca na ngeen taxoo yit ak ku ngeen dajeel ngeen laabiire ko la ngeen xam ci lu baax te yéeneen ci lu baax suba ak ngoon te bañ a tayal ci dara lu jëm ci lu baax dénkaane boobu nag sëriñ bi mi ngi ko doon dund bu baax a baax a baax moom sëñ bu mag bi royee ko ca sangam bu tedd ba sayidna muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ne ñam defaroon saa su nekk ñuy wane aw yoon wuy joxañ fa alquran jëm ak fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxañ di sunnaam bu ma ko tënkee am na ku siiw ku ñuy wax Omar ibnul Xataab am na jamono yoo xam ne moom la jullit yépp jaayanteel dafa am bis muy julli ca jàkka ja taxaw foo xam ne ñëpp koy séen ñu tuddee ko xutba muy wax ak nit ñi ba yàgg mu ne leen yéen nit ñi sama soxna su tudd Umu Kalthum di doomi Seydina Ali ibn Abi Talib ngaala sii ma yore soxnas buurub ruum moo ko ko yónnee la ko waral mooy sama soxna sii di Umu Kalthum daa yónnee buur boobee ay hadiya yu mu ko doon jox tàndarma fuddën ak lenn ci ay gët loolu la amoon waaye ba ko soxnas buurub ruum di delloo teraanga nag daf koo duyal ngaal soose ba mu fees dell ak wurus mi ngi nii ma yor lu ngeen ci xam jàkka ji na rëg-rëg ñépp ne ko moo ko moom ndax moo joxe woon teraanga ñu delloo ko ko Sidna Ali mi nga xam ne mooy wajuru soxna Umu Kalsum moom i jóg taxaw ne ko am naa ci kàddu mu ne ko lu ci sa kàddu mu ne ko ngaal soo su fees dell ak takkaay wurus ak ay bokkam na nga xam ne soxna su buurub Room joxu ko sa soxna joxu ko soxna su Omar bi Xataab waaye soxna su amirul muminin la ko jox xalaat ba nag mooy jël ca lu tolloog la mu yónnee woon soxna su buurub ruum li ci des lépp nga def ko ci bayti maalil muslimin Seydina Omar ibn Xattaab ne ah lii Ali ibn Abi wax day loolu laay def daan ne bu woon ak Ali ibn Abi na bu yàgg ndax sañ nga ko ak man nga ko lañ cay jàngate nag mooy euh, laabire googu Seydina Ali ibn Abi Talib bu ne woon doomam la Seydina Omar yore dana xo mën naa xool takkaay yooye mu yor lu cay doon wàllam waaye da doon wax rek te yàlla tax xamal ko ne ko bu dul woon soxna su amirul muminin du am lu muy siq ak soxna su buuru bu Room ba mu di ko yónnee as ngaal ba mu fees dell ak i takkaay kon boog lañ ciy dégg mooy ku nekk lam yor na xam la ko ko jox na xam ne ko ko jox ndax moom ñëpp ko bokk lam bokk ak ñëpp nag na cay diisoog ñëpp lam moom yoonu kenn nekku ci na ko fonk sañ na ca lu ne ba mu des yàq ko la yoonam nekkut mu maandu ca kàddu yooyu sëriñ bi waxoon nañ ko jottali di ñaan suñu boroom ci barkeb Cheikh Mamadou Fadal nee na mi nga xam ne mooy ab sëriñam te muy lu wér ñun ñëpp ñu bokkaat fi daje daaw euh, déwén daje woon nañ fi daaw yàlla nañ fi bokk daje déwén nawet bi nga xam ne moom la ñuy jublu siit yan na ko suñu borom def nawet bu barkeel bu woom ñi nga xam ne it leneen lañ dañuy yëngu te bokkut ak dem ci ay tool ak dikk lépp suñu borom barkeel ko te def ci seen muur sëñ bu mag bi nag nee na woon barke fu dara nekkut mën na ko faa def fu dara nekk bariwut mën na koo bareel fu dara bari bu ko fa fekkee mën na ko faa yàggal lool donte dara saxu fi kon sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di di déwénal ñëpp di ñaan kenn ku ci nekk bu demee lam ca dégg ka néew mu jottali ko ñëm jëm te ñaan suñu boroom mu de yóbbuwaat ñëpp ci jàmm ak salaam mi ngi dellu nag di santaat kilifa yi fi daje yëpp kenn ku ci nekk xam na autoram ak santam waaye bu ci tuddee suñ Cheikh Awa Balla moom Cheikh Moudou Fadal mii dend ak moom nee na nag ku jot mbooleem ko ci war a jot fu waay jëm itam sëriñ baa ngi feddali kóllëre gi dox seen diggante ñim ci seqaloon kóllëre ñim ci seq gutoon a kóllëre it sëriñ bi nee na mi ngi koy fas tàmbalee ko tey tey balu xaq ñëpp tey baal xaq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah